برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن ñu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله نيغي سنت يالله بو باخ دي جولي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام غنا بوكو بروم سبحانه وتعالى دفي موم اكاي ملاكام sant mbooleem ko gëm yàlla mu julli ci yontal Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñoo ngi am njort bu rafet ci àddina bi yàpp <coughs> di wax ne mbindaafoon yi yàlla moo leen moom ki ci gën ci mbindaafoon yi nag moy ki jokkale mbina fon yi ak sen borom al alxalqu xiyaalullaahi ahbum ila la an fom li xiyaali ma ne mbindaa foon yépp njabootu yàlla lañ subhaanahu wa taala njaboot gi nak ci gën moy ki fexe ba jël jaam bi boole ko borom bi subhanahu wa taala ba ñoo ñaan ñu nekk benn jëmm ki ci gën a yées mooy ko takkali mbinaafoon yi ak seen borom yàlla nekk fee jaam bi nekk fële te yàlla subhanahu wa bu nekkee fee jaam bi nekk fee yàlla day manqué jaam bi day manqué ndax yàlla nag subhaanahu wa taala wax dëgg yàlla jëmmam ji dafa peeg mboolem lu am mm-hmm. ala innahu bi kulli shay'in muhiitun comme yàlla moo peeg lépp nag kenn warta xalaat ne yàlla mu nga fële jàmbaa nga fële <coughs> loolu kooku sa xel dañu rek ne sa diine moom manqué na mu ngi sooxee kon maa ngi ndokkeel ñëpp ci yooyu kàddu pour ñu koy déglu ndax baatu sant yàlla yàlla ñu ko sant ba lu bare bare bari ci alxuraan baat bi sax nag yàlla ci la xotte asamaan suuf yàlla mu ne alhamdulillahi faatri samawaati wal ardi jaayili malaykatu rusulan uñ ajnaati masna wa sulaasa wa rubuha yasdu fa xalqihi maysa yàlla mu ne ma yàlla subhanahu wa taala maa jël alhamdulilah xotte ko xotte ci asamaan suuf kon alhamdulilah ci boppam baat boobu ñuy wax alhamdulilah lan moo ci asamaan ak lan moo cay suuf lan moo cay asamaan ak lan moo cay suuf ak njëkk asamaan suuf di am ana baat bi ñu lay ko Cheikh Ibrahim mu ne boobu borom subhaanahu wa ak baat bi dañoo bennoo littihaadil ismi wal musamma benn ko ñu beneen noonu nag ma yàlla subhaana wa taala wax na ne ko ma yàlla maa xotti asamaanu suuf ci baatu alhamdulilah alhamdulilah faatri samaawaati wal ardi jaayil malaakati rusulan wàcce ci ay malaaka ñu nekk ay yonent uli añ naati mas naa mu nekk ñi nekk ay boromi mbagg di naaw uli añ naati Masna, masna moy ñaar wala nga ne masna moy ñaar ak ñaar wa sulasa wala ñet warba wala ñent yusuf fi khalqi ma sa nak yalla bin lako soob nak loo mom soob rek la ko soob mel yalla subhanahu wa amal ko nak. تباتو الحمد لله موي فسعنه سعن الحديد وانا ورمسه الرمس الحبيب الرمس الحبيب للحبيب في هو الفقري مسكلي متى باي ديكو جانغالي جانغالي بو رافيت بو سل بو خامني zahir rek xel mën na ko mën a jàpp yàllal imaamil muxtala mata ajaaba bi bala lawlaahu daama mushkila li usma xa yen jëli kon bàyyi jal radilaahu nee na yàllal imaamil muxtala woo naa kaw téef imaam bi nga xam ne mooy ko kawe ki al muxtala mooy ko kawe ki ñu ne ko lu ko tax kawee mu ne mata ajaaba bii balaa ba yàlla waxee alas bi rabbikum alquran dafa wax ne xaalu balaa xaaloo moom mbooloo ñoo koy wax jamu la bàyyi ne déedéet kenn rek moo noon balaa mata ajaaba bii balaa كوكو نانك غادي موغون بلا لولاه دام مشكله لوسما قد ينجلي بوتو درا موم لب دا فاي لدم اي مشكله كين دو خم كون لولا الحبيب المرتدى ماني لماسا يرتدى ودينه لسرتدى بايمون اله في الاصل kon yonent yàlla moom saasam daal dëgg dëgg kenn xol mooy kan yonent bu rëy boobu nag wax dëgg yàlla su fekkee jamono dafay dox xam nga ni li ñu war a wax duñ ko wax diini ji dafa am ay lu ci war a wax yu gàgg ay gàgg yu bari waaye ay xuloo ak ay saagaante ak ay waxante yu ñaaw du loolu mooy diini islaam diini islaam diine xam-xam la islaam diine teraanga la islaam dina yemoo la islaam diine teraanga la ba faw kon ñun ñëpp képp ko jokkutee sa làmmiñ war ngaa wax lu rafet lu ñu mën a dégg am nga question yi ñu war wax lan la war a wax ñu war a laaj ci nit ñi yu daan salaam dafa yaayam daf koo ëmb daf ëmb rek ñaari weer papam génn àddina léegi nag question bi mooy lan mooy ñaari weer yi ba tax mu génn àddina ndax lu war a am la ak lu war ah, war a am la parce que am na ko pare waaye nag naka la amee loolu lañ war a sental baax pour nit ñi mën a yeewu ci islam yaayam daal ëmb na ko ñaari weer bàyyi ji génn àddina loolu question bu rëy la ci ñu ci lislaam ñu xalaat ci lii lan la ndax ñun tam salman léppam karaama la léppam léppam ay mujj la mu juddu ci diggante ak bàyyi day dee bàyyi ja faatu na kon ci ndey la juddoo bi juddoo ci wàllu waajur wu jigéen waajur wu aussi lan mooy xekki ma ba moom nàmpulu ko encore waajur wu jigéen yar na ko juróom benni xat lan may xëkk ma nag juróom benni at encore lan la te it loolu la ko war yar de mu daal di dem xëy bu mu faatu mooy tamit maamam yar ko huit ans moo ti huit la ko war yar mu te mu dem mu dem xëy kon baayam dem na xëy يايام دمنا غيبو مامام دمنا غيبو يالاغي فير تي موم نكي كين دوكو ير ما يالا ماكو يالا سامبو صلى الله عليه وسلم لول اي هيكما لا يو خامني كيب كان تي نون تي ليغا ورا خالات ما جوخيتي منن صاح نك دولنا مكه pendant 40 ans ñeen fukki hat te otul te benn kalima gu encore mu ngi ne patt ans la ne patt ba mu yàgg ci 40 ans yi mu dem benn benn benn benn kër gu ñu tuddee daaru arxam kër gu sell toog fa di oote kalima tawhid te mooy laa ilaha illa muhammad rasulullah woote ko fa 13 ans ci kalima tawhid 13 ans yooyu lal la 40 ans yële lan la te soo jëlee 40 ans jël 13 ans day nekk 53 ans ba léegi diine wàccugul ci moom sallallahu alayhi wa sallam te booba bàyyam faatu na yaayam faatu na maamam te diine islam wàccugul ba léegi léegi nag sallallahu alayhi wa mu jegee Màkka def al isra wal mihraj isra wal mihraj nag Isra moo jiitu jógee na Makka arxandi ko subhaana si asra bi xabbihi layla léegi laylu bi lan la zahir bam laylu la tudd waaye nag laylu boobu maanaa la de fu mu jógee min masjid aram jógee na masjid aram fu mu jëm masjid aqsa fu mu jaar nëbb nañ ko kon masjid aram ci zahir bi mooy Makk Masjid Aqsa ci Sahel bii mooy sori Selem fam jaar nag nëbb ko waaye ku tëddi ba moo fam jaar moom la tasur rihaala ila ila fi salaasi masajid yun sasam nee na kenn amul droit war ay gawar di tukki lu ci rek ñetti jàkk benn bi daal ma juru haram la بين مجل أقصى لا بين ماي مجدي هذا مجل حرام من ماي مكة مجد أقصى ماي سوري السلام مجدي هذا فماي مدينة المنورة لينك لي ماي سائر وحي لي ماي إسرائيلي لأن لن ماي مجد حرام تي معنا لن ماي مجد حرام تي سورة تي حقيقة تيمانا تيمارف ما جد أقصى لن ما يسورام لعقام لمانا أم لمعرفام ما جري هذا لسورام لحقام لمانا أم لمعرفة غوري فيني مرة وانت ليه ورد لجيت نجيب بكم لين ولك لا لا من هنا بيجي ما جد أقصى نت بين كم تنيوان بين كرام تنيوان بين موج تنيوان تيمام yonent yëpp dékkaat ci kanamam ah ñoom dégguñu woon kon day dëkk am na nekk am na fii ci àdduna bi waxuma laa xara de day dëkk fii ci àdduna bi ndax ñoom nañu yonent yëpp dékkwaat nañu te biñ dékkwaatee yonent sa salaam dem di julli jiite yonent yi ñaari rakk ñaari rakk la jiite yonent yi ñaari rakk yooyu lan la ñaari rakk yooyu mujj di gaay rakk yi lan la yow julli jooguñ la ko te julli ngay jël yow par jiite fi ñaari rakk rakk yi lan la kon ak yonte yi mu jiitu woon xanaa ñoom deeguñu woon en ah, ngay deew nañ mu tekki leen sallallahu alayhi wa sallam te bi muy dem encore asamaan moom moo war li gën a gaaw te bàyyi yonte yi encore ci sori salaam bàyyi li gën a gaaw ba pare te asamaan bu mu dem am ku fa fekk loolu mooy lan xanaa kon waru li gën a gaaw war na li gën a gaaw te asamaan bu mu dem fekk fa benn yëpp tuyal mu taxaw mu ne ko sàbbale ko nekk maa ngi dem man yow ma ci yow di dem di yéeg ba asamaan jeex bàyyi ñes sang bu tedd bi boroom xam-xam bu réy bi borom li jaaw bu rëy ba mu xekk ma yu neex yi bàyyi benn benn wëy ني رسول السماء فوق السماء فإنه دنا فضل وهو فرد القرسي دنا دنا فضل الله دون كيفين فإنه تقاصر هذا سجد جبروتي أي باينس لو باي وقت كون لي يب أي مادر قال تشوف كتير دكي كون كوي وقت نوقي لي من ين كذي دين وقت لي am na nag coow li fi am bëri na lool jamono bi tey coow li bëri na wax dëgg yàlla benn jaam yàlla bu doon waxtaan télévision drapé wax wax ju rëy ju jégg dayo wax dëgg yàlla nit lu mu ñàkk-ñàkk kersa lu mu ñàkk-ñàkk kersa lu mu réer réer réer réer réer war naa am nag kersa ci ay sëriñ si mm-hmm. ci sëriñam ba sëriñ kenn ku moom li mu ko taggee ba moom mu samanteeg waxam xam nga ne boo ne man sama yunteel moom sama baay moo gën baayam sama yaay mu gën yaayam kon yow yaa gën yonent bi lu tax nga gën ko alwar suru ab bi doom mooy mboote baay arqoaa ne wal balu tiib yox ju naa foto bi dara bi am wala si xëbb sax laa ju ila nakki da kon ñu ngi sant yàlla baax yonent yàlla sallallahu alayhi dëgg-dëgg waaye nag man naa ngi sant bu baax avant mooy tontu jéem a tontu ci ci mbokk boobu fekk naa gars yi tontu yu rafet waaye moom itamit nag wax dëgg yàlla jégalu na comme nag jégalu na te yàlla mooy tawaabu rahim yàlla ci bopp mooy tawaab te yàlla mooy rahim te moom jégalu na bu baax kon julli yëpp wax dëgg yàlla nañ ko jéggal bii débat moom nañ ko suspendre bu baax parce que jégalu na nañ ko jéggal ndax dégg naa sama benn mbokk talibu ci wax ju rafet ben talibu ñu wax bay ñang dam ñang pardon dam ñang sa wax ju la ne ko ñun ndax ñun ay tontu ko lañ xeyna na nak nag buñ déggee ku wax tontu ba xawon matal na na da koy doyloo rek dam ñang ngay ndokkel baax wala yàlla sutal ba rafet na trop waye ñun tamit nag nañ ko jéggal ndaxte yalla nak tawabur rahim ko def la warta wax wax la warta wax ma ngi def la warta def nga yàlla baal na la bu yàlla xasse baal nak dal mi defal li baal lolou moy jeexal wax bi waye li ci gëna graw nak bam ko yappal par dafa am ay nit ñu ci débat ay débat di ko jéem a dëggal ñooñu la war duma ñooñu mom dañ la waral duma moom amuñu xel amuñu xam-xam sallallahu alayhi wasallam sallam yun daal sax bi muy avant muy juddu deug la bayam fatuna mu dem 6 ans yaayam fatuna mu dem huit ans maamam faatu na kon rafet na mbokk léegi nag effectivement baayam ak yaayam ñoom nekkuñoon ci diini islam déedéet bu la fàttali loolu baayam ak yaayam nekkuñoon ci diini islam ndax ñoom faatu na balaa islam di ñëw waaye bul fàtte ne yoon sam nee na kulli mawluudu ala fitra képp ku jur sa fitra mooy lislaam fa abuwaahu yu hawidaani aw yu nasaraani aw yu majisaani aw bi nafsika képp ku judd sa fitra mooy lislaam soo màggee nag say mbokk say waajur ñoo lay def ay yóot mbaa nasaraan mbaa majus ak yun sax moom ñëw ñu juddu nag moom yaam ak baam seen fitra mooy lislaam moom mu judd encore dëggal islaam kon ni que na maanu nañ bàyyi ak yaayam kay wax dëgg ñu baax la wala baay moo gën bàyyi yëpp yaay moo gën yaay yëpp moom moo gën ñëpp loolu may dëgg yun tala masalai salam maanaam bàyyi ma gën bàyyi yëpp yaay moo gën yaay yëpp tey moom moo gën ñëpp lu tax suuf su tey ma gën jegante ko tey moo tax waaye ba doon teebu yow nabatoo bi dara sax laal ñu nakki da comme moom suuf su tey ci la jógee asamaan bu tey jur ko mhm. asamaan mooy góor mhm. ndox mu tey mu wàcc mhm. suuf moy jigéen suuf bu tey ëmb ko mu encore ci fu tey comme moom lépp dafa tey kii nañ maanu ci moom rek am na yoo xam ne koy war dañ te day te amoo xam-xam waaw yoo xam ne am na ku koy wax dañ te xam ne amoo xam-xam gis naa sama góor góor na sama paa boobu doon ma incar temps yële passé digg naa mu ci wax wax ju ñaaw di jéem a lay di jéem a dëggal waaja waaye dee bu ko dëggal nag waaja gaa déggul na nañ ko baaxal rek nag mu jeex parce que bu ñu ci nekkee di polémique dañuy métti lool wante li wér li mu wax waru ko wax. loolu ko war a wax da nga war a wax li nga wax waroo ko wax. ndax képp kenn ci ñun ku taxoon tey sama bàyyi gën sama rek nga xeex. waaw képp kenn ci ñun boo taxoon tey ne sama bàyyi moo gën sa bàyyi nga xeex. te bàyyi ñëpp. mooy kan muy unité assurance mm. boobu sax. kulli. fa jut lii bi ndey li asfal wisa communiste na bàyyam moom mooy moom mooy bàyyi ñépp wax dëgg yàlla te koo naan sa bàyyi sama bàyyi la gën mu xeexe yow tuuti sax mooy bàyyi ñépp ah loolu isaarata fi ni mën a xal ñaare bi ci toog yun tam sanam alquran di jàngale ci moom wa taqallubuka fi saajidin yow yun tam sanam yow dañ lu windeel ci ndigg yu sell yi ci ñi nga ñoom dañuy suyutu yàlla subhanahu wa taala yi nangu lay dugg suyutal yonent tam ndiggam yi bàyyi compté ne ñett la ñett la bàyyi compté bàyyi compté fii junne compté fii junne na ñoo ñëpp di sel lañ yun saa saram leeraam nga ci ñu sel dong la doon dugg ba wàcc kon bu demee ba Ablaye jur ko Aminata jur ko war nga xam ne kii ko baax la war nga xam tamit ñii tamit ñu baax lañ te bu ñu seetoo bàyyam taarixam rek saahir bi laa bëgg wax saahir bi rek taarixam saahir bi dafa naan dox ci mbedd yi ma Abdullah jigéen ñi di ko dogandu naa kaay ànd ak man rek ma jël ma jël téeméeri gëlëm loolu la bàyyi wax te moo am waaw ku fekk ku mel noonu ne man de man def lu xaram moom gën a lii man du lu xaram mukk waaye ko sàmmante nii ak ak ak nga am alal jigéen ñi di la dogandu di la wax lu mel nii ak ni góor ni mel jigéen xëy borom jëwén jëwén moo xam borom jëwén jëwén moo xam léegi nag moom xorma yàlla xormaal na ko ci loolu ba mu mës sa mooy yàlla kere ba mu àndee soxna su tedd sa tour ko leer ga tourné comme dee ne ko kaay ñu àndee ma ne ko ah fal te nga yow joroo joroo mburu leer ga taxaw ci aminata aminata ci ëmb ko malaake mu xam ñëw di ko sabbal mboolem li yalla amal ñu ñëw di sabal ku tedd sallallahu alayhi wasallam yonent yalla mo sallallahu alayhi wasallam nga ëmb gi ëmb rek bàyyi ndokkeel aminata ndokkeel هنيئا هنيئا لبنت وهب كون أنجبت بختام سادس له كون سبقت لوخ في الفخار كل فتاة أنجبت دور نيو واو كون كو تيد كو ميلون ماني borom teraanga bu rëy boobu lii woon yàlla kuñ ko woon si yaay nga kontaan te moom amee na yàlla yàlla du ko dimbale ëmb na yoon islam neuf mois yoo xam ne yëgu seen ëmb nit yëmbëral ëmbëri ko neuf waa leer gi di ko di ko kontaan loo mooy sant yàlla ci leer ga yëgul benn diisaayu leer ñëpp ko sampal ba muy juddu rek manaa koy daw manaa koy daw këfu doom ji waaw loolu doy na waar te réewle ba rek bañ ko réewle aussi bañ ko réewle ñu ñëw ñan la réewle ba aussi nekkat karaam xaasitu mi nga xam ne mooy jawru Firawna jële nga far tam bu yàgg nga xam ne moom ñëw mooy moo ñëw di ko réewle ak kan ak esa isa alayhi salaatu wasalaam ñi jigi ñu bax ñi ñooñu di ko réewle way wax deug kon xam ngeen kon mariam ku bax la ne sa daal ba ci ñaar ñi kon de man de man wax dëgg ku jigal jigal naa la waaye nag juum na nangu na joom na nañ ko bax nañ ko baal ñu ñep deug la mer donte nak nit ñi mer nañ trop xam na ne julli mer nañ trop trop trop lañ mer nag waye nañ ko baaxal rek man bama deggé señ dam dam dam ñang wax yalla <laughs> sama rakk ju baax jooju wax ci wax rafet man bobu doyna naa ci beug comme taalibaay ben taalibaay antuna rek doyna jey jox seigne dame wa salaamaaleykum wa barakaatu gannaaw li nak tay damay wax ak triste tay damay waxtan vraiment ak waxtan bo xamne danaka danaka nekuma fi waye waaye fi moy li Alxuraan di wax li ñuy waxaat ñun timit isa asaba o musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يالا مون بولي مسيبو ديكلي يان جول يان نيب نغي واخ ني نون تيال نجوغي تا تيال لاي لاني دال كون نيو تيم نيغي واخ ني إنا لله وإنا إليه راجعون ينام جي شيخ إبراهيم رضي الله عنه باي نيس وي كوي بو رافات تيغات وي بي gis nga baye wayima alquran la baye mune wa inna lil muhaymin suma inaa ilay raajihoona wa wëy xataaka bàyyi ma ne ñun ne ñun ci yàlla jógee te ci moom lañ dellu du lañuy dellu de lañ dellu tos ko ñeen li ko xamul lii kon nag suñ mbokk bu baax bi boroom xam-xam bu sell bi xale bu rafet bi borom avenir bu rëy bi ah sëñ Mansour sëñ Mansour Ñas ñu ngi koy jaale bu baax te di ko ñee bu baax it mu ngi jël ay mbokkam yépp waaye ñu ngi wax ne jameele bu sell del na ci borom subhanahu wa taala xale bu am avenir xale bu am avenir xam nga ne quarante et quelque temps lim fi réussir ci àddina bi ah ci lislaam ci wàllu ndimbal ci àddina bi loolu ku yàlla dimbalu mënoo ko kon yàlla ko bëgg a dimbale bu yàgg xam ne yàlla xam ne du fi yàgg comme du fi yàgg nag yàlla def def ci moom réaction boo xam ne ci moom lii boo xam tëjli bu doy war lay doon 40 ans rek mu liggéey fi liggéey bu toll nit yonti yàlla Muhammad yon yonti yu mag yi bala ñu daan nekk ay yonti sax dana dem am 40 moom ci biir 40 yi rek ca liggéey bi liggéey yëpp te lim liggéey parfait gëm na yàlla ko yonentam gëm na tarixatee liggéey fi liggéey bu rëy gëm fëtu liggéey fi liggéey bu rëy nekk soppee ëxlu fayda yëpp waaye nag li ko waral loolu mooy baayam dafa sell yaayam dafa sell waajur sell mooy tamit moom tamit maa ngi koy wax ne moom de fi mu juddoo dafa sell moo tax wala ba loolu tayib ba tey yor na après bis rabia belu nag mooy yaayam ju tëdd jooju ndeysaan te yaayam kat dafa war a sell sax nag doomu kan la ñu doomu Assane Deme doomu Assane Assane Deme man kuy Assane Deme mooy kii ànd na bàyyi sa la di wéy bàyyi woyu neex yooyu kooku mujjul yaayam wax dëgg yàlla kon papam nag kenn xamutu kenn xamutu ak sa képp comme jur ku baax rek nga mën doon ndax mu Ñas kenn ku ne seet na ne ku baax la ku rafet xol la ku yaatu xol la ku am taw tawhiid la ku am hikma la ku baax ku set ku sell kii comme jur ni ngay mel kon maa ngi jàll mbokk yëpp encore une fois dëgg-dëgg yàlla suñ doom ji suñ jarbaat bi suñu rakk ji suñu sëriñ bi yàlla mi ko moom nag moo ko jël yàlla moo ko moom kat yàlla bi nga ko tàggul kenn damaa wax toujours ma ne gis nga nit ñi nañ xale bu baax nank nank rek nañ ka nañ ka nank rek te bañ di werante yàlla ba muy bind nit do képp kenn ci ñu nag na xool boppam bàyyi ji wax ne ma jur doom yi sax ba yàlla bind nopp yëgu ko nopp yi ba ko yàlla bind bàyyi yëgu ko yaay mi ëmb doom yi neuf mois bi baaraam yii yaay yëgu ko woon doom ñi nga moom ni ëmb encore mu jógee ca bàyyi ñëw ci yaay ñu ëmb ko neuf mois mooy tamit may la bindi ay bëtam yëgu ko waa bàyyi yëgut yaay yëgut doom yëgut ku yëg kan la ki yëg moo yàlla kon ñu ñëm ne ngal cial yàlla moo gën moo tax alquran di wax afara aytum ma tamnun a antum taxlaquunu am nahnu xaaliquun ah sëriñ bi nañ sant yàlla baax te góorgóorlu sëriñ bi yàllaa ko moom jël na ko waaye nag jël na ko jël bu rafet jël bu sell jël bu am li lijaaba xam nga ni koo xam ne moom dundam yëpp zikur la la woon di yun sax waxoon na ne yun sax waxoon na ne man qaala laa ilaha illallah daxala janna képp ko wax laa ilaha illa dugg na aljana te sëñ Mansour wax na laa ilaha illa ay laa ilaha illa yu bari bari kenn mënu ko lim yàlla subhanahu wa taala wax ci atul kursi bu ne man qaala laa ilaha illallah daxala hisni umu daxala hisni amin hiqa képp ko wax laa ilaha illa dugg sama tata te képp du sama tat nag wóor nga ne mucc nga tey seen Mansour wax laa ilaaha illa kon Mansour waxuma ne xam nga ne yàlla bu yàlla dugal àjjana ñaan la rek d'accord nañ charatul rek waaye ma ne moom mu ngi aljana la ñu war a wax te bàyyi rek laaw moo wax ne képp ko ne dangaa ngaa faatu te ba ngay faatu yaa ngi nekku sell ci yàlla faatu xoloo da nga jóge ci barab bu naqari lu ci barab bu neex barab bu naqari kasu nga génnee kasu nga génnee dem ci hôtel kon sëñ bi tey jóge na kaso gim ne ko muy àdduna bi te àdduna kaso la kat àdduna kaso la àdduna si moomin bu jaddu kaaf àdduna kaso la pour julli bi waaw kon loolu yun sax ko jàngal ci àdduna kon ñu ngi santaale baax di ko ndokkeel man dama koy ndokkeel man dama koy ndokkeel xan ñi an dama xam naa ne fi mu nekkoon dëgg la neex na ci ñuul rek nii rek waaye foofu ñu ma ko dàq foofu ndax fi mu nekkoon dafa doon liggéey te fa mu jëm lay faye ko تسيادل المعرفة الحب في الدنيا سعادة المرك في الآخرة أو نعم. سعادة معرفة حب في الدنيا سعادة معرفة سعادة معرفة في الآخرة كم يات تواي قم قم يا لم تعد نبي لم فينون لجي ما يلا ما يبطل بينك في ولا على خير الله تلم لجي تي تي كارن تايم يي قم يعني كوكو فاي منك لياتو لول تلسي فاي دي مين تبي دي فاي ماتامو وخال انكور بان مان كون سياد المعرفه عبد في الدنيا سياد المر في ملك في الاخره كون دغ دغ دوم يالا بو سل ديمنا نينكاي جال نا خليفه بي ديكو جال خليفه شيخ ابراهيم السيد ماهي نياس ابراهيم نينكاي نوكل باخ خليفه خليفه شيخ ابراهيم ياغوغو في واي خيم نانا لو سيدنا غوي يان يالا ياغال في يا يالا بركه لا بو هين بيان يالا تيل لكو السيد ماهي نيغي ني انكور امام الاكبر imaamul akbar nga xam mo moo jël jumaa Cheikh Ibrahim te juma joju la baye woon la waxoon ne jumaa ji moy nihayatul dunya juma fil dunya wa al akhirati encore juma joo xam ne tëj adna ubi al akhirah ban juma la ah boobu jumaa doy na te bron sahel saaxir la gaa yi nga taxaw jumaa ba léegi mané ma ne gaa yi nga taxaw jumaa ba léegi kon juma ji kon baatal la war do te bàyyi juma ju su pare taalibe si seen ajo seen faju kon nañ xalaat ci waxu bàyyi kon daal dëgg-dëgg li ma bëgg wax dëgg-dëgg xaw mu nu ma koy waxee waaye ba tey maa ngi jaal maa ngi jaal maa ngi jaal ki mooy porte porte bi de Cheikh Ibrahim ak Seydi Mahi Cissé Ali encore ndëkkal baax di ko njaal soppeem xarta di rakam waaye nag bu li yëpp nag maa ngi jàll nag soppeem xaritam grand frère am doomu ndeyam soppeem bu dëgg dëgg dëgg a Seydou a Seydi Baye Mamour Niass maama maa lay jàll baax Baye Mamour maa lay maa lay sa rakk am ci dëkkeel baax am nga rakk ju baax am nga rakk ju sell am nga rakk joo xam ne jëfe naa am rakk yu mel noonu waaye tamit mag nga de mag nga ju baax yu tamit parce que yéen ñaar ñii diggoon ngeen lool yéen ñaar da ngeen may ak six neuf te loolu yëpp li ngeen doon dund ci àddina bi yëpp ñun ñëpp ko teg doon teg bët seen bàyyi leen ko dénkoon. man mii di wax ak yow seen papa di sama soppe di sama xarit waaye di sama sëriñ Seydi Mamoun ñas benn bis taal na oto ànd ak bu bari ñoo ñëw sama xadara juma ba ñooy seet sama xadara bi ñu wax ma waxtaan yàlla dafa kontaan kër ci man torop ba mu génnee mu ooma téléphone maanaam jógee na fi ajuma samedi ci góor mu ooma téléphone moom sëñ Mamoun nee ma préparel lënd nga dem mag xanaa dama bàyyi man mi yóbbu noo màkk papa mi yóbbu noo màkk ma te ba man yóbbu màkk kan la ma booletoon seen man su mi la ma boole kon kër mosu mosu mënu suñu gidd fu ñu daw taxaw bu ñu tawafatu xudóom moo an ñun di expliqué ay ad aswat ay rukun yamaani ñu wër sept fois ya lampañ départ yëpp mu ñu ko doon jàngal ñu jógee foofu dem safa marwa kasaalika safa ina safa wal marwa min saa illah mm. man hajjal bayta aw itamam falaa junaaha alayhi dem te maxam ibrahim in wala maxam ibrahim on dogal kar amina ñu jógee fofu nag génn nak dem muna mustalifa dem harafa lañ fa def taxofa fa ñëwaat musdalifa julli fa timis ak gee for ay xafran bët set ñu forfa xair hand ak mom dem jamara suxra wusta kubra sa ne fa ben bu nekk ñu sa vingt xair 20 xair deux xeer fois trois égal 63 63 mu dun yunti yàlla moom alei salatu li yeb mu na ñun ci loolu moom mii tey moom sëñ Mansour mii laa wax léegi nag ba liy jeexee ñu ne xu tawaadul ifaada su ma afidu min al afaad naas kon sëñ Mansour ñu koy jaar àddina bi seen Mansour àddina yépp a koy jooy asamaan dana ko jooy suuf si dana ko jooy jaww dana ko jooy biddi yaa koy jooy ñu saba bi weer baa ngi koy jooy jant baa ngi koy sabalal ngelaw yaa ngi sabal ngelaw yaa ngi sabal bu baax xam ngeen ne hmm gara yaangi sabal do yaangi sabal gudi yaangi sabal bëj yaangi sabal bis yaangi sabal ci mom lepp sabal ci mom ngir baxam ya yalla xare ko aljana way te mom moy jëme aljana dañuy ñaan rek ñay ñaan rek ngir ay jam lañ ya yalla xare ko aljana way lool wërna ay mom moy jëme aljana kon ngi sant yalla baax vraiment diko nuyu baax di nuyu ay mbokam diko jall ñep mbolé ko nek talib cheikh ibrahim fo may nek ci aduna bi ñu la koy jall yaayam teud ji na waxumo fat yaayam ji mom dafa sel ba nga xamne kenn xol moy kan yam ju sedd yam ju bax ku ku doy war ku ku papam gërëm ku xale yi gërëm ñepp gërëm nañ ko te ku gërëm sëriñ bi la te li gën neexat sa bala ma bala pardon sen Mansour bi mi faatu wala bu mi bëgg a faatu def na hadru juma kërëm def juma hadru juma moy para paré dé hadru juma para paré dé la parce que aljuma la yalla tukki adna bi cheikh seetaan dafa ben jamm yalla bu sel ñu ko tudd hadru juma mu def adoro jumaa ci bir kërëm ci ci bi sawé ma han nak mbolo bari aduh ñu sabbal ko ñu fekke ko mu def adul bu rafet mu neex jógee fofu ba set mu julli mu julli suba teel mu julli euh, suba teel waaw julli ben rakka am ben problème parce que ñaar rakka ba nak ñaar rakka ba rek def ko ma ngay baga daanu gaay ko eh ma ba sax xam-xam la ñaar rakka ba sax xam-xam ba foofu itam mu dugg foofu mu feebar gaa yi du jël gars yi téye ko dafa dugg ci biir néeg ba feebar yi gën a métti ñu jubbu ko hôpital ba mu xamee ne day génn àddina mu ne médecin bi jox ma big ak fooy ma bind médecin bi seet ak big sax moom itam ba mu ko fàttu daa woon saay bi ne leen jox leen big ak fooy ak daal ma bind moom itam bi mu ko fàttu lu mu wax jox leen ma big ak fooy te xanaa dara daa dara mu door bind sallallahu alayhi wa sallam kon démbay tey ah kuy niru niru na ak sallallahu alayhi wasallam léegi moom itamit nag bi mu defee loolu mu jub hôpital ba mu yàgg mu toog mu yàgg mu ne médecin bi may ma ndox ma naan ndax ab jullit dëgg-dëgg bu bëgg a faatu warta mar kon kañ xamoon ne mu ngi dem bu yàgg mu tàggoo mu toog yàgg mu ne bàyyi sa ngi nii di ma jël si ay bàyyi kum jël si bàyyi kum jël te nga ñeelal àdduna parce que bàyyi moo ne waman yu hibbu nii waman yaraa nii fi jant xulli bi laa fota is ani nii xalifatu tijaani أي موهبة من أحمد حدناني من سك في سا أرا واسمو من حسن دائرة الفتاوى اسمو كون نيو سنتي الله باخ دنيا عالم الاسلام ييب دنيا تركوتيان ييب دنيا فيد مولا شيخ ابراهيم ييب دنيا كو جاي ييب ا با زد موي غور موي جيجين موي ماك موي نداو موي كوني خام موي كوني خامت نيو كو جال ييب جام يالله بو سل بوبو جام يالله باخ بوبو ليغال يالله ليغال يونتال محمد ليغال شيخ تيجان liggéeyal Cheikh Ibrahim liggéey jaam yàlla yëpp te liggéey Sénégal gi nag liggéeyal Sénégal ci gouvernement bi la bokkoon kon jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di leen doog leen ziare wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jaajëf Cheikh Ibrahim barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tijaan jox ñu ñuy naan